wasalaatu wasalaamu ala man bai lfadaili wanniam markazi almaani walmaarifi walxikam majla asmaai walsifati walafal wa ala alihi wa ashaabihi gurri almuhajjalin wa summi almubajjalin mushahiduna alkiram wa mutaabiina abrata alfadratikum almufaddala télévision futur média nuhayikum bi tahiyat alislamiya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal mbooleem xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu wér te yàgg fi lool ñaanal bu baax a baax sëriñ baaba Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des tiijaan nuyu ko ziyaara ko ndokkeel ko bu baax a baax ñaanal ko mu wér lool lool lool te gën fi yàgg noonu lanoo nuyo ak a ndokkeel ak a ziyaara sëriñ Maodo si Abdul Aziz sunu sëriñ sëriñ Babacar Abdul Aziz sëriñ Mansour Abdul Aziz bu ñu leen nuyoo Seydi Mouhamadul Mansour bu Seydi Jamil nuyu Seydi Mouhamadul Moustapha si mu sëriñ Abdul Aziz Al Amin noonu lañoo ñoo mboolem njabootu Seydil Hadji Malick gépp bàyyiwunu kenn seriñ mu sëriñ Moulay Mouhamadul Habib nu ngi koy nuyu sëriñ Sidi Ahmed si Mouhamadul Habib nu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax maga Amérique nuyu waa ITFA noonu la ñoo ndokkeelee bu baax a baax sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbakke xalif général des murit nuyu ko ndokkeel ko bu baax a baax ak njabootu Cheikhul Khadim gépp nu ngi leen di ziyaara noonu la ñoo nuyoo Thierno Mouhamed Bachir Tall xalif Omar ak njabootu mam Cheikh gépp bàyyiwuma mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi Sayid Cheikh Ahmad ni ñas ca Medina Baye ñoom ñëpp Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass ca Léona Niassène Serigne Mounirou Ndiéguène ca Thiès ñu ngi leen di ndokkeel noonu laa nuyoo Serigne Dame Ndiéguène suñu soppee bopp Serigne Cheikh Ndiéguène ña nga Thiès ñu ngi leen di ndokkeel mbokk yi ndokkeel bu baax a baax dem Ndiassane ñaanal xalifa bi mu yàgg fi te wér Cheikh bu Diop sunu soppee bopp xam ngeen ni bisam bu mag bi la dëd mars lay doon incha allahu taala loolu nag njaasaan lay amee ren moom seex bu Jóob nga xam ni soppe yi bi réew mépp la Cheikh bu maa ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral kon mbokk yi 2 mars daal yaakaar naa ñépp ña nga njaasaan Oustaz Mouhamed Ndiaye it moom it 2 mars moom itam ma nga koy defee ca Cissés nu ngi koy nuyu nuyu naa mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu wér bàyyiwu moom benn ëttu kër yi diine sama Tidiane yi ba ba nga ca Medina Gunaas noonu la ñoo nuyoo njiitu réew mi ñaanal ko yal na yàlla yokk ko dëgëral ak kilifay réew mi euh, muy euh, ki jiite réew meeg opposition beeg ñëpp rek bàyyiwunu kenn président Youssou Ndour moom itam nu ngi koy ndokkeel euh, Serigne Djili Niang nu ngi koy nuyu oustaz Assane Seck oustaz Ndiaga Seck oustaz Mor Thiam Seyda Fat Bintou Diop ma nga Amérique nu ngi koy ndokkeel moom itam oustaz Moudou Fall oustaz Abdoul Karim Ba oustaz Serif Ly ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel mbooleem asatise yi nekk ci groupe Futurs Médias yaakaar naa bàyyiwunu kenn kenn kenn kenn yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi euh, jaal mbooleem ñi génn àddina ci réew mi ñoom itam nu ngi leen di masaw yal na yàlla yeesal seen yërmande ci daraja yonent bi alayhi salaatu te xam ni ginnaaw Seydina Muhammad moo dem banu xam ngeen ni fii kenn du fi des sunu bàyyil xaaji Mouhamadul Makhtar Cissé ñu ngi koy nuyu ma nga Cees moo nu jàngal alquranul karim ba ñu wàcce alquran moom itam xam ngeen ni bésam bi kazu rajab ba al ba lay doon moo waa soppe da baax ca Thiès incha allahu taala Pape moo koy waxtaanee bay waxtaan Cissé nu ngi koy nuyu di ko ndokkeel baax Bouchra ga ma jàngee xam-xam ñoom itam bis bi suba lay doon ci samedi ji ak dimaas suba di gàmmu gi le 3 le 4 mooy ziyaara bi incha allahu taala ci la ñu tëj kaamil bi. maa ngi nuyu sëriñ Aliou Ndiaye sëriñ Cheikh Omar Ndiaye Cheikh Ndiaye Hadj Malick Maodo xalifa ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel am na ñu mbégte ak télévision Futur Média émission ba ngoog siira ngoog ñaanal mboolem ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla defar sunu àddina ñaan yàlla it mu defar sunu mbiri alaxira ci darajey sunu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam yi siira nag ñu ngi ko jilee ci baat bi di asayru nga xam ni mooy doxiin ñu ni nga dégg am ku ni siiratu nabawiya am koo dégg ñu ni jikko yonentu bi alayhi salaatu wasalaam waaye doxiinu rasulullahi waaw moom yonentu bi waaw doxiinam doxiinu yonentu bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni moom sallallahu alayhi wa sallam naqar ak mettit bu dal doomu aadama dal na yonent bi alayhi salaatu salaam mettit gu ni raw waaw moom rek la yàlla jàkkaar lool joxoñ ko boobu saxaaba yi gëm nañ ko xeetu ngëm goo xam ni moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu euh, euh, yonent bi leen gënal seen bakkan yonent bi leen gënal seen i doom Seydina Muhammad gënal leen seen alal. ah ñu ñuy tiim yonent bi di ko xool rek lu mu digle ñaga ca yàlla ne ko jàkk ne ko dangay ngay dee loolu kenn xamul lu mu doon saxaaba yi jaaxle yàlla ne ko innaka mayitun wa innahum mayituuna summa innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuuna waaw yàlla ne rasulullah gi lu ma bind yaa tax aljana yawa safara yow doomu aadama yow la jinne yow la malaayika yow la addina yow la xéewal yow la lépp yow la yow rasulullahi waaye dangay ngay dee innaka mayitun ah ak lu mën a xew bis dina jot ñu gas ba mu xóot ne la yomb ci biir te mbokk yi ki yàlla wax loolu li yàlla lu yàlla bind moom la moom rasulullah yi yàlla ne ko innaka mayitun keef gi keefu xitaab la njool màkk na yàlla waxul waxul ak kenn moom lay waxal dangay da dee sa gaa ñi ànd ak yow wax leen ni ñoom it dañuy dee bis dina jot ñu gas ba mu xóot ne yomb ci biir ay dee la yàlla wax yàlla waxul dafa nelaw de ay ndiw dafa nelaw ak ma ah mani yàlla dee la wax innaka mayitun da ngay da ngay dee yow rasulullah gi te kii yàlla wax loolu lu yàlla bind mooma te nag neexoon na yàlla yonent bi dund junni at aadama mi dund junni at Mustafa ko gën sunu maam joojule yun ci yàlla noox mi dund junni at yu manqué juróom fukk Seydina Muhammad ko gën yun ci yàlla Shuaybu mi dund huit cent ans juróom ñetti téeméeri at Shuaybu dund na ko yonent yàlla Ibrahima mi dund 140 ans ki ko gën mooy rasulullah yi 63 ans dong la dund juróom benn fukki at ak ñett waaw. moo tax keroog bi muy dem dañ ko proposé bokkul ak Ibrahima mi nga xam ne dañ ko imposé moom rasulullah yi waaye dafa gore moom rasulullah yi yonent bi dafa bëgg yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam. keroog bi muy dem bi ko mëlakul mawti ne yàlla nee na bu la neexee dem léegi dem aljanna bu la neexee toog fi junniy at junni junniy at dee dem aljanna yonent bi def ne ko dee léegi dem aljanna te booba l'islam baa ngi tàmbalee neex parce que rasulaay xeex na ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yónnee na ñeen fukki xare ak juróom-ñaar moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam lislaam bi tàmbalee yëkkatiku doole ji taal tàmbali naa ñëw ndax dem na ajam gu barkeel googu ca aljumay arafaam jooju yonent bi ñibbisi lislaam tàmbalee neex yëf yi tàmbalee ubbeeku mëlakul muuti ne ko yàlla nee na yaay tànn mu ne ko léegi dem léegi dem léegi moo tax boo amee doom mu dee xalaat ko suul na juróom benni doomam soo amee sa baay mu génn àddina xalaatal rasulullah gi lu yàlla bind mooma yow mii toog lànk bañ a lekk ndax sama baay daa dee lànk bañ a lekk sama ndey daa dee lànk bañ a lekk ne samay doom dafa dee wala sama xarit daa dem xoolal ki nga xam ni bu nekkuloon ak moom yow doo am te mooy yi suul na suul na nu baayam bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam kon gisul ak baayam yow sax dund nga ak sa baay ay at yi ay at ma ay fan xalaatal njool màkka mi am juróom benni at yàlla rey ndeyam di amina mi ko jur yow dund nga ak sa yaay ay at xalaatal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi suul roqaya mi suul zeynab doomam lañ ay doom laa lay wax ne te roqaya maye woon na ko am na borom kër kon kii ba ñu koy maye roqaya am na borom kër ba am ca benn doom bu tudd Abdullahi Roqaya Ousmane la nu ko may mu am ak Ousmane benn doom buy Abdullahi yàlla bàyyi ba Abdullahi moom sax muy première sëtu Rasulullahi yu nelaw seq moo ñëw cof ñaari bët ya cay Seydil ko yàlla fayal nee na wa diiku yu nu xaru min aynay nee na seq moo ñëw cof ñaari bët ya ba bëree néew yi xatmaata min warami waaw Abdoulaye dee te bi muy dee bët yaa nga néew yi moom moom Abdoulaye moom nga xam ni roqe yaa ko jur roqe Sidina Mohamed jur ko te est-ce que xam nga ni roqe amul 30 ans 29 ans la dund moom roqe mi taawu rasulullah yi am na ñu wax ni Zeynab la waaye ñu bari roqe la ñu wax Fatimatu bint Rasul 29 ans la dund ñaar fukki at ak juróom-ñeent amul fanweeri at Umu Kalsuum Euh, vingt euh, Umu Kulsum defe na vingt vingt deux ans la ñu wax ci la dund Zeynab euh, Zeynab dund vingt vingt huit amul njool màkka doomam bu am fanweeri at mais mbokk yi xoolal googu naqar xoolal méttit yooyu rek mu muñ ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw yenn saa yàlla bëgg a def dara am lu mu def nga toog di jooy ak naqarlu fekk li yàlla def moo gën mu rattaraayam bi ndam kese la laa sana jërëjëf waaw boo fi ñëwee xam ni tëraayam bi ndam kese la moom rasulullahi sallallahu alayhi wa suul na yaayam te bi yaayam di dee ñoo ànd ñoom ñaar njool am six ans fukk juróom-benni at amina ci digg àll la génn àddina ci man manding ma jóge ab jóge midin di delluwaat makkatal mukarram tabul fàtte ni ci six ans yi rasulullah yi ci la ànd ak yaayam tukki dem medine am fa juróom benni at ci la njool màkka jàngi fii ak fet bi ñuy ñibbi ci bi ñuy ñibbi si ba sa yoon ba ci la feebaru sukuraat dab yaay rasulullah yi amina génn àddina dama lay wax kàddu yi mu ko wax waxoon naa la ko pour nga bàyyi ko xel xam ne loolu dëgmal xalaatal yàlla daf ne ko kullu xayin mayitun Mamadou mu ne ko naam yaay mu ne ko ku mës dund di nga dee xam ni dangay ngay dee nga sax ci lu bon xam ni da ngay nga nekk ci lu bon xam ni dangay ngay dee xalaatoo di dundee lu lew xam ni da ngay dee waxtu ta nga ni jullit nga yow nee nga jullit nga waxtu julli du jot mukk ba nga julli xam ni dangay ngay dee ko weeru koor gii ñu dëkkmal nga ni doo ko woor soo wooree tey bu subaa nga woor wala nga woor woor goo xam ne yow wóor na la ni wooroo woor goo xam ne ci jëw nga ko nekkee woor goo xam ne tiriyaa nga ko nekkee koor goo xam ne def lu bon nga ko nekkee koor goo xam ni wax lu dul dëgg nga ko nekkee te nga wax ni yow jullit nga te xam ne li nga nekkee lépp boo ko nëbbee borom bët bu bi nga xam ni laa taaxuzuhu du ko jot si sinatun ngëmmintu naw nawmun du caagi nelaw te mooy borom bi subhanahu wa taala yàllaa nga jënoog lépp jàmbaar jaa ngi nii Cheikh Seydil Hadji Malick nee na maa ngi lay wax yéen ñiy bëgg-bëgg lu njool màkk ne bëgg ngeen ko am na ñoo xam ne du dëgg ah ñu ne ah si mu ne rasul kat boo ko bëggee da ngay topp ay sunnaam wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu kada tibaau lati yaati min al umami Haaji Malik nee na farata ci yéen ñi nga xam ne yéen a nga wax ne yéen a bëgg rasulullahi ngeen topp sunnaam kon ñuy wax ni ñoom euh, euh, euh, ci sunna rek la ñu ne Maodo xam nga ne ni mu dundee sunna loolu kenn xamul lu mu mel waaw yal nañ ko yàlla fayal moom Seydil Haaji Malik yàlla lañ ko yàlla fayal mu ni amina bi muy génn àddina njool makkaa ngi am juróom-benni at dafa am ñu wax juróom-benn six ans la Maodo nii am na ñu wax ni euh, quatre ans la wa ama arbaatin aw sittatin hëlakat ummu nabi bi abwa i aw zoxumi zoxum nag mu ngi bokk ci turu màkka yi comme nga ni ndar rek ne Saint-Louis wala nga ni njaareem ne Jurbel xam nga ni benn dëkk laa la wax ci alaaji Malik <laughs> kenn kenn xamul góor gi lu mu doon moo tax mu ni Euh, bi abwaa yi ci dëkk bu ñu naan abwaa awi zoxumi gis nga waaw awi zoxumi xaafiyee baa tax te mbii miimi ya lay way wa xaafiyatul bayti al axiratu la xalil ibnu ahmad wax mi taalifa arub imam axfas ni ko xabla saaki ne ni ilantiha xaafiya bi góor gi jëli turu màkk bi ñuy wax zoxum mu ni bi abwaa i ci dëkk bu ñu naan abwaa la amina génne àddina Maodo war naa indi turu makkatal mu karam mu indi taxaafiye bi euh, fa way way daanoo mii mi yëla góor gi ne awi zuxu mi nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal Maodo rek point kenn du moom góor gi dafa bëri xam-xam waxuma ko mais dafa xam rasulullah te nit pour pour nga bëgg ko faaw nga xam ko pour nga bëgg ko faaw nga xam ko ba noppi amina ni ko ku mës a dund di nga dee wa kullu jadidin baalin lu mës a yees dana ràpp wa kullu kathirin yaf naa lu mës bari dana jeex ne ko war naa may tëtu doom damay dee waaye méttiwu de mu ne ko yaay nooy deewee te méttiwu la mu ne ko ndax wax xataraktu xayran bàyyi naa yiw bàyyi naa yiw buñ la tegee ci jaat war laa jullee gaa yi ne ci ran bi am ñu war a seede gaa yi di xalaat mbon gi nga nekkee woon allahu akbar loolu ku ko bàyyiwul xel xamoo lu tax xamoo lu xew waxuma roof gi ñu lay roof ci biir bàmmeel wala ginnaawaa ah, mais tëral ba yow dong kenn du la jiit imaam sax ginnaaw la lay féete yow néew bi yaay taxaw ca kanam waaw imaam sax bañ na laa jiitu la jiitu ah sa ginnaaw lay taxaw. yow néew bi yaay ne ci kanam yaay ne ci kanam te buñ daan julli imaam ay ne ci kanam ne allahu akbar gaa topp ci ginnaawam allahu akbar waaye tey yow néew bi yaay taxaw ci kanam imaam taxaw ci ginnaaw gaa yi def benn rang imaam ne allahu akbar ma nga lay jullee waaye ma nga ñaanal borom bi imaam ma lay ñaanal njéggalal borom bi subhanahu wa taala mbokk yi gaaw leen fidaawul seen bopp bala ñu leen di fidaawul jàng leen alquran bala ñu leen di jàngal alquran am na néew boo xam ni bu ñu koy wàcceel kaamil laaya bu ñu toll laaya bu ñu toll tombeg mbugalal borom bi subhanahu wa taala néew boobu ñu ngi koy mbugal war am na néew yoo xam ni jaruñu sax jàngal alquranul karim waaw ndax mbon gi ñu nekkee woon ci àddina waaw moo tax du ñëpp lañ ko war a jàngal koo xam ni bu boo booy booy booy zappe ba yem ci alxuraan daal di ciipatu alxuraan mi ngay ciipatu ndax war dañ la koo jàngal ah yaa ngi xas sëriñu daara yi yaa ngi saboote daara yi di xas daara yi di xas ñiy jàngale alxuraanul karim musoo lijjanti alxuraan bu nu koy jàng sa xol di tàng ndax yow boo deewee war nañ laa jàngal alxuraan yow yow nga yëg nga ñàkk yëg alquran la ba alquran ci boppam mu njëkk a denc yow te alquran nag waka siraat yi wakal misaani ma adilatan mbaa xam nga la buy sayri waxoon ni dafa jub comme siraat wakal misaani ma adilatan nee na ni balance maandoo alquran a ko gën a maandu waaw léegi nag loolu ngay déggee loolu ngay jàppee ni alquran foo ko teg mu teg la fa ndax maandu gi ci moom wakkal misaani maadilatu nee na ne alquran dafa mel ni ki balance ci maandu boo tegee un kilo mu peser un kilo nga teg deux kilos mu peser deux kilo alquran ak gën maandu balance waaye bu ñuy jàng alquran nga ciipatu bu daara di jàng ca kaw nga ni tànqal nañu ñii sonal nañu bu ñu tegee alquran ci rajo jàkka ji nga ni mi ngi may déranger yow bëggoo déglu alquranul karim nga dee ñu bëgg laa jàngal alquran ah war léegi ba bari na néew yoo xam ni bu ñuy jàng kaamil duñ ci jot parce que gars mooy ñooñu di romb mooy ñooñu di romb ci mbedd yi xam ngeen ñi ma wax de mooy ñooñu nga xam ni dañuy xëy déglu rajo waaw bu ko defee ñu ne euh, mortala ka doomu alaaji góor gi ka ca Cees faatu na waaw pap ka ca Cees dee na salika doomu góor gi ka dee faatu na waaw kay nga xam ni ah sama doomu nijaay yi rek laa jël ñoom bu ñu demee amul benn problème Ibou Ndaw waaw ñooñu amuñu benn bu ñu faatoo it garaawul dee na dégg nga léegi nag ñooñu waaw bu ko defee ja jaal mi juróom-ñetti fan yi ñu ngi déglu de fan yi ñu ngi koy ñu ngi leen di saraxale waaw kay dégg nga air san la sarax si bis sàngam la la it ñooy njëkk ca sarax sa mokkaluñu fatiha bu ñuy séddale kaam yi li gaa yooyu toog nga jox leen allahu akbar yàllaa lay nattoo ñooñu parce que yow bëggoo alquran yàllaa lay nattoo ñooñu ñoo waxuñu dara parce que yow sagaloo alquran jàngoo alquranul karim bëgguloo alquran bu ñuy tudd alquran mi ngi lay déranger booy zappé ba yem ci kaddu borom bi subhanahu wa taala nga avancé am na ko ma mës a téléphone ni ma oustaz billahi lazi la ilaha illa huwa ni ma man nag euh, yéen oustaz yi sax man duma leen di seetaan su may zappe ba yam ci oustaz buy waxtaani diine dama koy zappe mais vraiment dama gént gis prophète bi mais bi ma gisee bi ma ñëwee euh, ci biir gént gi nga ne ma kaay ma yónni yóbbu la ci yonent bi mais ma ñëw gis prophète bi jox la yitte quoi ma ni ko euh, foofu dañ la gént la rek da man dama ne ko loolu gént la rek dañ lay wan ni rek yow da ngaa war a euh, bàyyi xel sa sa diine ah waaw parce que li mu njëkkee tax dafa ni bu waxee loolu man dina ma convaincre te xamul sama digganteeg rasulullah gi ma ni ko dañ lay wax ni pour nga fonk sa ga sa wàllu diine tey déglu mbiri diine tey jàng alquranul karim te ne ci lu baax loolu rek lañ lay wan loolu lañ lay misaal xam naa lu baax loo defoon la ba tax ñu lay misaal loolu jërëjëf sëñ bi say am ko naan la man duma déglu du ma déglu waaraate kii naan la man duma déglu ay affaire jàng alxuraan waaw nga dégg ko naan la ah man day seetaan football mbaa seetaan filmu ah man de du ma seetaan télé Sénégal yi mbaa rajo Sénégal yi duma leen déglu ah man de affaire l'islam yi ay mbiri diine yi duma ko déglu te yow nee nga jullit nga ah. te moonte mën ngaa zappe ba yam ci kuy jàng alxuraan mu jàng laaye boo xam ne duna dugg sa biir xol mën ngaa zappe ba kuy waxtaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax la ci lu sedd sa xol nga julli ci sayyidina Muhammad tudd gi mu koy tudd rek nga ni sallallahu alayhi wa sallam am am nga ca yiw na ñoo xam ne dañu bew waaw bew am na ñoo xam ne dañ am na ñoo xam ne yaakaar nañu ni duñu dugg biir suuf waaw bew firawna moo la ëppoon doole fuuf yàlla da koy bàyyi di ko jay rek génération bu ñëw ak moom dund téeméeri at dee firaw na ne fi beneen génération ñëw dund quatre-vingt soixante-dix ans téeméeri at ñooña dee mu ne fi xale yee judd woon ama téeméeri at dee mu ne fi yàlla bàyyi ko ci àddina junni at ba mu jël baaraam ba ne rëkk ci dënnam ne ana rabbukumul aala ndeke maa yàlla ju mag ji keroog la iblis tiit iblis ne ko ah <laughs> yow nag wax nga lu ëpp de iblis saay saay bi nga xam ne ku ne jay na la waaye keroog bi mu waxee loolu iblis nee na ko nag wax ah wax nga lu ëpp de moom firawna ayna namruuzu wa kanaanu wa man malaka al arda wa walla ay ana namruuz mi ni woon moom moom àddina fépp ana borom xel ya ana borom gaayu ñaw ya ayna arbaabul xija ayna ahlu nuha ayna ahlul ilmi ana borom xam-xam ya ana ñu tey ana ñi grat fondu woon grat ciel ya ana sang yi ñoo doon wax ni yéen yi sang ya ayna man shaadu wasaadu wa banaw ëlëkal kullu falam tuxnihil fulal tey ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf seen gratte ciel yaag dara du leen jëriñ milliards yaag alal ja ñu bàyyi woon ak or yaag seen yëre yaag dara du leen jëriñ lu dul jëf ju baax ju ñu nekk woon ci àddina mille neuf cent ana ñu juddu woon mille huit cent ana ñu ah mille mille huit cent ma dem mille neuf cent dem ba mille neuf cent jóge fi ba deux mille ñëw ah ba deux mille ñëw yow nga defe ni fi nekk ba l'an trois mille mbaa wala l'an trois mille wala l'an quatre mille est-ce que daañu àgg foofu sax damay bàyyi ba nekk mag dóor ku la wax di nga nekk mag damay bàyyi ba nekk maire door a tuub ku la wax ni di nga nekk maire yow dangay damay bàyyi ba nekk paa door ku la wax ni di nga ko nekk est-ce que malakul moo tey ñëw ci yow ne la temps at yi ngay dund est-ce que malakul moo tey ñëw ci yow ne la nangami at moo la dese ci àddina te yàlla na ne mulukul muuti ñaar ngay def ma dégradé la nga rey ko ërëm jutul ak nga rey ko ërëm passé ña ci réew mi di santage nit ñi ah ku ne ci lu baax nga ne du ko fi nekkee ku jub nga ne du fi jubee ah mbon gi na ci yow nga lànk ni du tuub soxor gi na ci yow nga lànk ni doo changé ah, yenn saa yi ngay soxoree nit di ko iñaane xaaral ma fàdd ko mu daanu benn yoon kii xaaral ma faagaagal ko kii nañ ko teg dil mais am na koo xam ne fi ko yàlla defaree boo boo xamoo ko fi ko am na koo xam ni fi ko yàlla defaree fi yàlla mooñee ay mbiram nga ni fi yàlla mooñee ay mbiram dinaa ko galgal fi yàlla mooñee ay mbiram dinaa ko yàqal boo xamoon fi ko yàlla mooñee nga xam endroit ba doo fa mën a àgg ba nga xam ni kii fi ko yàlla mooñee ba tegewu fa xel demu fa nga war a noppale ci kooku saa yoo xëyee bëgg a yàq yàqal nit saa yoo xëyee bëgg a toroxal nit waaw Amina wax rasulullah ni ko kullu hayyin mayitun ku mës a dund di nga dee waaw wa kullu jadidin baalin lu mës a yees dana ràpp ne ko wa kullu kathirin yafna lu mës a bari dana jeex man xamoon naa ko dencoon ay milliards. billahi lazi laa ilaha huwa xam naa ko ko xam ni amoon na alal ju bare bare bari bari ay kër bi mu deewee amul benn biir néegam buñ ko denc te teg ko noonu di ko xool dañoo gas ba mu xóot suul ko man xamoon naa koo xam ni bu génnee mbooloo mi koy topp ak oto yi koy topp kenn xamul lu mu toll deewul de deewul deewul mu ngi fi mais mënatul dox wax waxuma sax mënatul dox mais fa mu tëdd mënatu faa jóg àddina da lay abal dénk la yaa ngeeg ndaw fukkeet ak juróom-ñett vingt ans vingt cinq ans kattam gi trente ans 40 ans 45 ans 50 yaa ngay wàññeeku 60 yaa ngay jëm mag nag 70 ans ah yaa ngay tàmbali nag màgget yaa ngay ñëw am na koo xam ne li ko daan topp li ne woon ci moom waxuma maa gis koo xam ne ba daan am mooy raw waaye léegi waxuma sax daw mais dox sax ko te moo kàttan moo alal moo la gën a rafet moo la gënoon a dëgër waaye tey fa mu tëdd bu ñu ko may loxo mu jug du jug am na koo xam ne waxuma sax bay loxo mais ma nga dee na ma nga ca biir suuf tey ñu denc kullu xayin mayitun ku ma sa dund di nga dee yaay njool màkka ko wax amina te bu yàlla yónnee ko rasulullahi waaye xool aminatu bintu wax bin moo tax moo tax keroog jàmbaar ji Seydil Hadji Malick ne ne aminata naqiyat an sairi tuhami mbir moom muy kun wóolu mu set wicc ci mboolem tu xeetu tuuma yi moom yaay rasulullahi yàlla def la ngay amina dàq ci lu yàlla bind yaayu njool màkka er, jabar ju ñaaw moom doom yi ñaaw rek te xoolal yonent bi dàq ci yàlla bind ca ngay xamee ne amina dafa rafet papaam rafet ah waaw moom kay ñaare am benn yaay rafet papa ñaaw doom ji màgg doom ji doom ñëw nduru yaayam ji rafet wala yaay ñaaw baay rafet doom ji nduru baayam waaye baay ak yaay ñëpp ñaaw doom ñëw rafet loolu moom bariwul lu muy am bariwul lu muy am de yaay ñaaw bàyyi ñaaw doom ñëw rafet bëriwul lu muy am benn kay yaay day rafet papa ñaaw doom ñëw dippi yaayam daal di rafet waaye yenn saa yi doom ñëw dippi baayam yaayam ne ko jàkk xool bi tàng xam ne baayam la jël <laughs> am na xale jigéen ñoom seen yaay day rafet waaye boo la gisee ñoom seen parce que seen baay lañ duru waaw loolu nag amul problème rafet moom nit moom yaay fexe noo civilisé rek te rafet te am personnalité même boo bu la yàlla bindee nga ñaaw setal rek te civilisé te am personnalité tey tey tey bari looy naafila nag parce que bari looy la day tax sa karam day leer day belli ñaawaay day nëbbu ñaawaay dégg nga amina dàq ci lu yàlla bind waaye yow sa taar jay na la te jigéen xamul ni day rate am na jigéen ñoo xam ne dañuy rate parce que dañuy topp seen taar war a sëy lànk ne duñu sëy ku ñëw ñu xeeb la di yóotu milliardaires yi te xamuñu ne milliardaires yi jigéen ju toog ci pooju ndeyam la ñuy wër jigéen ju baax la ñuy wër jigéen ju yiw la wër jigéen ju tedd la ñuy wër jigéen nag mën ngaa siw lool rafet lool waaye mbaax na ci yow mbaax na ci yow tedd nga na ci yow waaye bul yàq sa bopp jigéen ñépp a tedd jigéen ñépp ay sang lañu waaye kenn ku ci ne sa jikko yi bopp mooy tax nga gën keneen ki amul benn jigéen bu yàlla teral jigéen nag bu la yàlla teralee da ngay xam sa bopp sa celui qui se connaît connaît son seigneur boo xamee sa bopp xam borom bi subhanahu wa taala parce que yéen jigéen ki leen teral mooy borom bi subhanahu wa taala yàlla moo leen teral teral gi la yàlla teral nag xamal sa bopp bu la yàlla joxee taar xamal xamal li la yàlla defal bu la yàlla joxee ñaawaay xamal li la yàlla defal bu la yàlla defalee am na ñoo xam ne rafetoo ñu ñaawoon ñu ci digg bi xamal li la yàlla defal soo xamee li la borom bi subhanahu wa taala defal dara du la jomb waaye boo yaakaarin taar bi mooy tax gaa yi topp ci sa ginnaaw xamoo li xew yaa nga yàqal sa bopp bu ko defee ku ñëw da ngay dàq ku ñëw nga dàq ku ñëw nga dàq day dem ba dangay ngay rate bu ko defee xale yi ndaw yi ñooy commencé màgg gaa yi dañ lay bàyyi dem seeti leen moo boo ci tollee rek defal farata moro célibataire yi amagul borom kër te rafet lool maa ngi leen di ñaanal ngeen gaaw sëy xool leen ci xool leen ci gaa yuy ñëw ngeen xool ci kur jikkoom rafet ndax yonent bi nee na euh, booy takk soxna na euh, ñeent yii mooy borom askan baax na borom borom taar baax na borom alal baax na waaye Seydina Muhammad nee na bi gën nag mooy borom diine mu ni moo tax mu ni faxtar bi zaati diin bu ko defee tari ba yadaaka boo tànnee jigéen ju am diine sànni woo sa kalpe dóora sa loxo ca ëkk waaw booy booy takk takkal jigéen joo xam ne am na diine waaw bu ko defee boo tukkee du la moy parce que waaw na diine jabar joo xam ni soo dëddoo bu la bu la tàggoo damay voyage sa xel day dal am na jigéen ñoo xam ne dañuy gàddu peñe jëm marché am na fu ñuy jàdd ah. allahu akbar jàdd mooy yàlla njaaloo am jëkkër wëlbati ko waat di togg añ après jox seen jëkkër yàlla gëmul nelawul yenn saa yi nga naan diw mii ni sonnee ci sëy bi ay waaye doomam ji lu ko lan moo ko teree tekki fekk moom xam na yàlla xam na waaw ndaw si ndaw si xam na yàlla xam na saa yi nga gis ko sonn nga naan kii daa sonn ci sëy fekk moom am na lu muy def ci suuf kii ndeysaan kii dey jëkkër ji ndeysaan jëkk ni mu sonnee ci sëy kii day fekk dafa am na leneen lu muy def ci suuf sa jëkkër bu ko yëgul it yàlla yëg na maanaam jarul farantu boo demee ba mënatoo waxal sa jëkkër may ma sama baat mu may la nga dem sa yoon moo gën nga am jëkkër am far di njaaloo dara jaru ko na la yàlla gën lépp boo nekkee sa jëkkër it mu fase la ñetti yoon génnal kër gi demal demal seeti keneen boo sëyaateeg moom da ngay njaaloo ay dama koo bëgg su ma ko bàyyee damay torox sama njaboot gi aw ma fu ma jëm ak ñoom mais après ngay continuer di njaaloo loolu dafa xaram na yàlla gënal lépp waaw góor ñi ku ci mer ne sama sa jabar fase naa la trois minutes après ngeen juboowaat naan amul seede donte amul seede sëy bi tas na boo ne sa jabar fase naa la yéen ñaar dong trois minutes après ngeen juboo charia nee na am ngeen benn passé ngeen xuloowaat nga ne ko wàcc naa la l'islam nee na ñaar ngeen continuer su ñettee l'islam nee na jeex na bala nga koo takkaat faaw baada zaw ji mu am beneen jëkkër ba noppi at-talaaqu marrataani yàlla ne na passé ñaar la rikk bu ñettee ñàkk nga waaye nekk ak sa jëkkër mu fase la ñetti yoon yow dégg nga ko ci sa nopp mu ne la fase naa la ngeen juboo mu waxaat la ni fase naa la ngeen juboo mu waxaat la ni fase naa la ngeen juboo après nga nekk ak moom ci kër gi di sëy ak moom ay doom di ci juddu ñu koy ngénte ngay solu allahu akbar mbokk yi xool leen semaine bi ñi dee ñi ñi dee ñu suul leen aljana am na safara am na benn anglais li tax mu dugg ci lislaam nee na wax lu dul dëgg ñu baal ma ji waxi ñi ma koy waxee noonu la ko waxee mensonge la wax toppin xale yi faaw nga wax la ñu dégg ay fen la wax mënul weesu téeméeri at waaye nee na prophète Muhammad bi mu tàmbal bi mu waxee ak léegi am na junni at ak ñeenti téeméeri at ak lu ëpp bu nekkul rek bu nekkul du dëgg mooy moom waxam ja fay na bu yàgg a yàgg kon prophète Muhammad mii li muy wax dëgg la bu ngeen ne gaayam yi bu ngeen demul dem naa ci la dugg ci lislaam yàlla wax rasulaay ni ko waxal sa gaañi ni ñoom it dañuy dee. ginnaaw yow bi nga deewee innaka mayitun wa innahum mayituna suma innakum topp yéen de yowmal qiyaamati bisu pénc inda rabbikum fa seen boroom taxtasimuna di ngeen xuloo ay mbokk yi jàmm bu bara tiim ak yàlla di xuloog moom am sàjjuk borom bi am meruk yàlla yàlla nañ ci yàlla musal amina xool rasulullahi ne ko kullu hayyin mayitun ku mës a dund di nga dee def naa fa laa jàddee woon ne ko wa kullu jadidin baalin lu mës a bees tàq dana ràpp ne wa kullu kathirin yaf naa lu mës bari dana jeex ne waa naa may tëtu doom damay dee na bi siggi xool yaayam bi muy am six ans bu ne la jàkk bëtam yu rëjee dootoo xool kenn moom rasulullah bu ànd xale yi ñuy tëb bu njo bu njol màkk tëbee xale yi duñu mën a tëb la Mustafa tëb bu nuy course mooy njëkk raw teel a am doole moom rasulullah gi bi muy am ñaar fukki at ak benn la fekk ñaari xare xar bu fijaal ak xel fu fudul moom rasulullah gi njool màkka tax màkka gañ a xare booba ñaari xare ya te mooy xar bu fi jaar ak xel fu fudul boobu Moustapha ngi am 21 ans ñaar fukki at ak benn bi mu amee ñaar fukki at ak juróom moom yonentu bi alayhi salaatu wasalaam màkk yépp di ko wër mu gën a yiw ñëpp gën a baax ñëpp gën a sell ñëpp gën a tedd ñëpp gën a maandu ñëpp gor ñi moo leen gën di gor moom rasulullah gi amina ni ko lu ma sa bari dana jeex lu ma sa bari dana jeex waaw gis ko yoroon lu baree bari dégg jékki yoratul dara gis am riir moo xam ni di nga am benn usine sax société boo xam ne la fa daan ne ci la fa daan lam daan produire kenn xam léegi dafa jeex ma amatul ñu ni loolu amatul léegi Sylvain Guédé ma ci lu ma sa bari dana jeex ne ko baa naa ma yitatu gàmmu abraar xam ngeen ni suba la incha allahu taala waaw ñaanal sëñ Abdul Aziz yàlla yokk yokk leeram al amin sëñ Moustapha nu lay nuyu simaali sëñ si Ahmed mu ngi leen di nokk dokkeel baax a baax a baax lu ma sa bari dana jeex amina ni ko waa naa ma yitatu damay dee ne jàkk rasulullahi ne ko doo méttiwu ma de mu ne ko yaay nooy deewee ta méttiwu la mu ne ko ndax wax xataraktu xayran bàyyi naa yiw bàyyi naa yiw man amina wawalatu tuhuran bàyyi naa doom ju laab te mooy yow mii amina ni ko ba zikiri baaxin sama tur man amina dina des ci àddina ba keroog yàlla yiwul buftu bi kenn du ma fàtte suma maatat topp amina dee xatta nasmau nawxul jinni ba ñuy dégg déjjitu jinne yi maanaam ni jinne yi di jooye nan oh! ngir yërëm rasulullah yi waaw jinne yi jooy ngir yërëm ko umu aymana mu jël yonent bi fekk amina bi muy dem mi ngi ànd ak umu aymana jël yonent bi dem jox ko abdul mutalib maamam kon seyduna muhammad baayam dee na seyduna muhammad yaayam dee na maamam abdul mutalib yor bi mu amee ñaari juróom benni at ñaari at la dund ak maamam abdul mutalib maam ja dee gis nga yàlla moom tamit lu ko neex lay def faalun li ma yuridu mooy def lu ko soob moom borom bi subhanahu wa taala Abdul Mutalib bëgg yonent bi moo tax ci sept ans yi njool Màkka ca la Abdul Mutalib sax ànd ak moom demoon di ndokkeeli Zayd ibnu Ziyazan ca nguuram ga nga mu gañe woon Yaman ànd ak mag yi Makkatal Mukarram waaye Sayf ibnu Ziyazan bi mu nee jàkk xool Abdul Mutalib xool yonent bi alayhi salaatu salaam dem ubbi bible bi xool ko bu teralee màkka kenn ku ne ma ma jox la bu la joxee bu joxee ke eh, ñaar fukki nit yi ñëwoon nga mën a dégg bu joxee kenn ku ci nekk juróomi million jox na Abdul Mutalib juróom fukki million mu ne ko xam nga lu tax ma teral laa mooy xale bii nga àndal <laughs> boo demee nag na ko garde waaw te si sept ans yooyu ci la feebar moom yonent bi moo tax huit ans ya euh, no voyage ba voyage ba yonent bi demul yonent bi da ko bàyyi makkatal mu karam ndax yonent bi beneen voyage bi mu tukkiwaat ci deuxième voyage am bi mu ànd ak ndeyam ci six ans ya beneen tukki bi mu tukkiwaatam mi ngi am douze ans te bi douze ans yooyu mi ngi ànd ak Abu Taalib ba ñuy dem Saam mais ci yoon bi dafa wàññeeku ndax Baxiira labbe ba bi mu duggeek moom xool ko xool ko xool biibul bi xool njol makk daf ne ko irdu danhu delloo ko makka fa ëhlul makri fii himami ñooñu pexe ñëpp ñu ngi ci yitte xam nañ ni juddu na xam nañ ni makka la juddoo xam nañu ni toll na ci fukki ak ñaar 12 ans xam nañu ni tey ah, ah, dafa war a tukki ñu ngi koy wër bu ko gisee dinañ ko rey irdu danhu teel a ji Malik bàyyiwul dara delloo ko. delloo ko fa ahlul makri fii himami ñooñu pexe ñépp ñu ngi ci yitte bu ñu ko gisee faat ko waaye Zayd ibnu Ziyazam bi muy teral Abdul Muttalib daf ko terale ci sa sët bi nga bàyyi makkatal mukaram boo demee sàmm ko taxool ko boobu njol maakaa ngi toll ci sept la tax dembul wax na ñu ni feebar bala te muy wànnente ba mu feebar moom rasulullahi njol màkk am huit ans Abdou ab Abdul Muttalib mi jur Abdullahi mu jur ko moom itam daal di génn àddina mais bi muy sukkuraat dafa woo doom yëpp woo Abu Taalib ne ko xam naa ne sama doom yaa ci gën a néew alal malgré ku néew doole nga waaye xale bi yaa ma ci doy parce que da nga baax ko jullit waxul warul wax ni da bon maa la gën a bon bon maa la gën a bon jullit du ko wax da bon di nga xam ni maa la gën a bon loolu jullit du ko wax mbokk yi jullit du ko wax dégg nga bon maa la gën a bon jullit du wax loolu yow danga xam ne da ngay bon di nga xam ni maa la gën a bon allahu akbar waaw président sunu président Pape président Pape Djibril Fall ma ngi koy nuyu ñaanal ko yàlla ko yàlla yokk dëgëral waaw li mu bëgg ci réew mi bëgg ko yàlla yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci dara daraje rasulullah yi sama xaritu bopp waaw baxiraani njool makka ir du danhu delloo ko ndax fa ahlul makri fii himami boobu Seydina Muhammad mi ngi toll ci 12 ans Abdul Muttalib génn na àddina ci 8 ans yi Rasulullah gi Abu Taalib ba ko yor 12 ans la am mu dem Cham dellusiwaat na agul saa moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam 25 ans mu wutal ko soxna 39 ans 6 mois lu mu gént bu xëy gis ko 40 ans yàlla yónni Seydina Muhammad 49 ans 8 mois 11 jours Abu Talib mi ñu ko dénk dee bi njool Màkka amee 49 ans 8 mois 11 jours kon Abu Talib la ko yor 8 ans kon Abu dund ak yonent bi 41 ans 8 mois 11 jours. yoo xam ne ñoo dund ñoom ñaar ba mu ñaanali ko soxna ba ay doomu yonent bi juddu ci kanamu Abu taalib ndax Abu Talib bi muy génn àddina Seydina Mohamed mi ngi am 49 ans 8 mois 11 jour kon Abu taalib lu baree bare lu ëpp ci dund yonent bi fekke na ko moom Abu Talib mu jur Seydina Aliyun mu jur Jaafar as nga xam ne Jaafar ma nga dee xare mu ay doomam bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu Abu taalib mu jur Jaafar ma nga dee mu nga xam ne xare boobu keroog buntu kër gu ne xam ne taxaw na fa ndax taxaw na fa ndax borom kër ga dee na mbokk yi gis nga yonent bi tëdd fii avant lii di am nii lislaam bi avant nuy jullee ko noddu nii ah metti woon na de ay xare moo amoon xeex benn sette xare yoo xam ne fekke na ko xeex na ba ñu damm bëñam moom yonent bi xeex na ba ñu naan dee na moom rasulullah yi coono bu ne daj na ko wala dara boo ko bëggee defar faaw mu metti waaw boo ko bëggee defar faaw mu metti kër sax boo koy tabax faaw nga takk sa biir booy booy tabax kër faaw nga takk sa biir waaw wàññi wàññi noos bi parce que ngay takk kër da tabax kër gi am réew sax boo koy tabax faaw nag commencement bi mu metti balaa affaire yi dox waaw ndaw boo ci tollee balaa ngay tekki faaw mu metti waaw moo tax kenn ku ne da ngay ñaan yàlla gaaw la ubbi moo tax jàmbat bi du ko jar góorgóorlu rek te na ci góor rek te ne ci yonent bi avant muy dajeeg Xadija sàmm la doon def te sàmm bariwul xaalis waaye keroog bi mu dajeeg Xadija te moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax Xadija bu soxla jotee mu nekk borom kër bu servi bu service jotee mu nekk soxna moom Sayyidatuna Xadijatu baaxoon lool. taxawu yonent bi moo la soxna mooy dimbali boroom këram waaye jël sa jëkkër def ko moroom jël sa jëkkër fonkoo ko jël sa boroom kër faalewoo ko jël sa boroom kër sonal ko teg ko fitna bu bu tëddee du nelaw jël sa borom kër doo ko toppatoo jël sa borom kër def ko loolu loolu nga defee ne yow li di nga am di nga li nga bëgg am di ko am affaire yi tëddeewul noonu ah Sayyidatuna Xadija yonent bi def ko gërëm daf ko gërëm ndax taxawaay yërmande gi mu amoon ci moom ndax ni mu ko taxawoo ndax ni mu ko jàppalee ndax ni mu ko dimbalee ndax ni mu ko bëggee moom jigéen ju tedd jooju rek moo tax jigéen ñu bari jigéen ñu baree bari ci Xadija la ñuy taxaw seen jëkkër waaw taxaw seen borom kër dimbali seen borom kër sagal seen borom kër ah, ah waaw Oustaz Assane Touré borom xam-xam bu mag boobule waaw waaw gaa yaa ngi laaj nag gaa yaa ngi lay laaj ah gaa yi ne nañ il faut ñu def benn palaato sa Assane Touré sama soppee bopp boroom xam-xam bu sell bu mag a mag a mag si na Assane yal na yàlla yokk dëgëral ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nuyu nag euh, euh, al imam imam moom ma nga ma nga ñaajoo sunu soppee bopp ko bége lool lool lool na ko yàlla yokk dëgëral ci daraje yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye mbokk yi xam ngeen ni euh, le 2 février incha allahu taala mooy gàmmu ndakaaru waaw sëriñ Sidi Ahmed mu sëriñ Babacar si yàlla na yàlla yokk leeram taa suñu ci barkeem nuyu sëriñ Abdul Aziz si mu sëriñ Sidi Ahmed incha allahu taala gàmmu ndakaaru incha allah xam ngeen ni euh, le 2 avril lay doon le 2 avril boobu euh, le 2 ma avril le 2 février bi ñu dëkk mal waaw sëriñ Sidi Ahmed nu ngi koy nuyu di ko ndokkeel bu baax a baax a baax di sunu soppey bopp di sunu euh, seriñ macha allah di sunu lépp moom moom sëriñ Sidi Ahmed euh, moom sëriñ Abdul Aziz yal na yàlla yokk ko dëgëral euh, soxna Fatima yónnee naa la bésu Zak Mbaaw bi di la diis di bisu Sema Tidiane Diak ah incha allahu taala loolu nag Cheikh Diak bisam bi la diis la ca Zak Mbaaw Baye Makhtar Cissé incha allahu taala moom euh, bésam le sept la incha allahu taala ca Thiès incha allahu taala mooy la sept la sept bii ñu dëkkmal waaw ca Thiès incha allahu taala sunu baay alxaaji Mouhamadul Makhtar Cissé ànd kook waa daayira soppe da baax ñu Pape Ba Ablaye Ndaw Mor Diagne Thierno Ndaw Iba Dieye Modou ñoom ñëpp rek euh, Abdoulaye Ndaw ñu leen di nuyu di ndokkeel Hadj Malick Maodo euh, Fatima Euh, bésu Cheikh Diak mi ngi noonu incha allahu taala moom itam ca Zac Mbaaw loolu nag euh, le le 10 février bii ñu dëkk ma lay doon waaw waaye gàmm war xoox tamit incha allahu taala euh, moom gàmm war xoox nekk le le le 10 février ca war xoox nga xam ne El Hadj As Mbaye moo ko daan firi. bi mu génnee àddina sëriñ Maodo si mu sëriñ Abda mu alxaja mu sëriñ Abdul Aziz bu alxaja Abdul Aziz Dabaax radiyallaahu anhu sama sëriñu bopp euh, bi waar war xoox ñëwee ci moom ñu ko alaaji moo ñu boole woon ak asmbaay alaaji Abdu dem na asmbaay it gaañu na asmbaay it dem na ñu bëgg nga jox ñu firikat sëriñ Maodo si woo ma boole ma ak ñoom ëpp na fukki at maa leen di gàmmul ñoom gàmm war xoox ñoom itam la 10 le 10 février bi ñu dëkk ma lay doon euh, incha allahu taala xam nga. ëttu soxna yi ca jam ñaajo ñoom itam deuxième édition euh, seen bés bi la 11 février lay doon ca jam ñaajo ñu ànd ceeg imaam Assane imaam euh, euh, imaam Assane loolu nag bu ko bu ko kenn kenn kenn wuute incha allahu taala kon mbokk yi xew-xew yaa ngoog xam naa yeneen yeneen programme yi daañu ci gën a ñëw kon alaaji laasana bésu sama tijaani jaag bi euh, Busra programme gàmmu Busra xam ngeen ni suba la euh, incha allahu taala xam ngeen ni Busra mooy daara ji nga xam ni bés bu ne daañu jàng ay kaamil ah, bu ñu jàngee ay kaamil yoo xam ni bés bu ne daañu jàng ay kaamil jàng ay tur yàlla yu baree baree bari ah, bu ko defee nag euh, bu. fukki fukkeelu fan ba ñu tëj kaamil bi nga xam ni dañuy jàng ci ay kaamil kenn du xam lim ba kenn du ko xam waaw ca euh, sëriñ Habib Ndiaye arut yal na yàlla kewel aljanaam sëriñ Habib Ndiaye yal na ko yàlla yokk yërëm yeesal yërmandeem waaye xalifa bi di rakkam sëriñ Aliou Ndiaye moo fa ne Abdoul Aziz Ndiaye sama sëriñ Cheikh Omar Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Bousra Maodo Ndiaye Khalifa Thierno ñoom ñëpp euh, Younus ñu ngi leen di ndokkeel ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàmmu sëñ Abdou Ngo euh, gàmmu Ndakaaro kon laasana gàmmu Cheikh Diack incha allah taala moom itam euh, le 10 février lay doon kon le 10 février lay doon kon lu ngi ñaan daal programme yaa ngoog maa ngi ñaan yàlla defar sunu mbiri àddina yàlla defar sunu mbiri àllaaxira euh, daayira nuurul basar euh, Pape Fall bu télévision Futurs Médias mi ngi may yónnee incha allahu taala première édition takkusaan zikr lay doon mu nekk samedi la 17 incha allahu taala euh, ca Malicounda waaw Nourul Bachar euh, ca Malicounda loolu nag bu ko bu ko kenn kenn kenn kenn wuute incha allahu taala nu ngi ndokkeel ñëpp ziyaara ñëpp ñaan yàlla defar sunu mbir yi àddina yàlla defar sunu mbir yi àllaaxira waaye mbokk xam ngeen ni al euh, alxames le allahu taala ca. daañu def benn plateau spécial boo xam ni en direct lay doon ci Malikia TV ñu ngi nuy président Makhtar Ndiaye ak euh, Asfiyahi TV ñu ngi nuyu euh, président Mame Omar Ndiaye euh, mu nekk fondraising boo xam ni Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib ca Zawiya ba mu jënd ca New York fële ca Baltimore muy Zawiya Sidi Hadj Malick nga xam ni rek ñu ngi ko jëndee woon 300 millions incha allahu taala ñu ngi ko jëndee woon. ñu ngi ko jëndee woon 300 millions moom jumaa joojule xam nga zawe boobu dañuy def fundraising nag le 8 lay doon ak euh, en direct ci Malikia TV ak Asfiya yi maa ngi ñaan loolu nag bu ko kenn kenn kenn wute xëy bu ñu fukki dërëm ba milliard euh, nga xam ni sak la ca biir Amérique nga jënd fa église bu mag bu tol noonu euh, soppi ko ñu fay julli jumaa di fa xadara di fa wasifa am na saal am na fu ñu jàngi alquran di fa julli ci jumaa moom sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib taxawaayam boobu kenn xamul lu mu toll incha allahu taala euh, bu ñu demee ca plateau boobu ñu joxe numéro Zelle baak Wave baak Orange Money baak yëpp nga xam ne lu waay am rek def ca incha allahu taala kon ñu ngi ñaan yal na yàlla defar sunu mbiri àddina yàlla defar sunu mbiri alaxira alaaji laa seen xam naa ni maa ngi taxawandi may bay alxaaj Cerno Njaay Baye Alxaj Cerno Ndiaye am na plateau bu mag a mag bu mu defoon moom Alxaj Baye Cerno Ndiaye euh, euh, benn annonce bu mag bu mu defoon ànd ko xalifa bi euh, njabooru Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp bàyyi wunu kenn nu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj laa na mu ne woon ci rési bi mun suur nu ngi koy nuyu moom itam soxna Fatima ñu ne woon ci rési bi mi ngi noonu journée de prière la gis nga bés baa ngoog bi boobu kañ la mi ngi noonu waaw kay Cheikh Diack Cheikh Diack ngoog sama xaritu bopp gis ngeen maa nga ne kon xam ngeen ni bés bi sama bés la incha allahu taala ah Babacar Diop defe naa moo koy moo koy moo koy way waaw kay Serigne Sidi Serigne Serif Hamza nu ngi koy nuyu Serigne Sidi Ahmed Alhaji Abdul Aziz Al Amin ma nga noonu muy ca Zac Mbao cité police loolu nag incha allahu taala samedi lay doon euh, muy samedi euh, di euh, samedi le 10 incha allahu taala waaye jërëjëf laasana ma jàllale beneen Boubacar Diop ca Thiès. moom itam bisam bi incha allahu taala euh, Boubacar jóob sunu soppee bopp sunu xaritu bopp ca Thiès bosam bi la 9 aljuma ji ñu dëkk man lay doon incha allahu taala ca Thiès maa nga fa loolu nag bu ko kenn dëkk euh, wuute ersan lay doon moom Boubacar Diop di xaritu ñëpp di soppee ñëpp yal na yàlla yokk ko dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ma bàyyi leen nag Alxaaj Ceerno Njaay wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sang bi di cheikh na cheikh Saad Bou doomi cheikh na cheikh Mouhamed Mal Aynin xalif général kulli xaadir nee na mi ngi tàggatoo ak mbokki taalibe ak mbokki jullit yi ak mbokki lislaam di leen xamal ni mi ngi fiy bàyyi xelam di fi bàyyi xolam ak ruuxam taqali ak yéen mënta nekk. ودور ماني مادع وشاكر وما اعترف له بالجميل الدولة السنغالية وعلى رأسها Macky Sall. nee na li jiitu muy jiital ci ko nga xam ni mi ngi tàggatoog moom di ko ñaanal mooy réewum Sénégal ak ka nga xam ni moo di bopp ba di président Macky Sall ak gouvernement am. ak parti yëpp. nee na ak parti yëpp parti politique yëpp. ومسلم حتى وموادع موادع التلاميذ. nee nee na nag du dem mukk di bàyyi ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñooy taalibey xaadiri yi taalibey xaadiri yi ñu mag ñi ñu ndaw ñi ñu góor ñi ñu jigéen ñi nee na bàyyiwu ci kenn ne nee na it fàttewul bokki tarixa yi nga xam ni lu mel ne tarixatu muridiya ak tarixatu yi laayeen ñaseen bàyyiwul kenn ci diinal islaam مادحهم كاملين وما اعترف لهم بالجميل العدل والنا من قد الأمن ومن قد الإحسان ومن قد الضيافة التامة أنواعها كاملة نينا دال ميغي ليني تاغو دي لين نيانال دي لين واخني بكنا ci li nga xam ni moom ngeen ko doon teeroo lu ci bokk ci teraanga yi ngeen ko doon defal ak wóolu gi ngeen ko wóolu woon ak li nga xam ni fa tabaarakallaa moom ngeen ànde woon ak moom ci ndoorteg tukki ko ba fi ñu toll راشدهم عند مولانا بقاء وراية أحسن تتعدل حالتهم ويتوافقوا كاملين ويجبروا مناهم وراية وإذا جيتهم رجعت للحقهم أشبههم من الصيف اللي خليتهم به nee na daal mi ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo mën a maye mu mi leen di may xéewal may leen jàmm may leen lépp lu ngeen xam ni moom ngi bëgg ba li ngeen mënoon ren bu déwénee ci kàttanu yàlla mu fekk leen ngeen def lu duubal loolu ومسلم عليهم حتى حتى تنا بكلام أن اللهم لا تجعل هذا آخر عهد na mi ngi nuyoog yéen bu baax tey ñaan yàlla lii nga xam ni moom moo di tukkeem bii ci seen biir yàlla bu mu doon seen mujjub tukki ak seen mujjub gise وراشدهم من عند مولانا ذاك اللي يبقوا انفاسهم يعطيه لهم مولانا لينا daal kenn ku ci nekk yaa xam li nga soxla ci sa xol bëgg ko ci sa xol yal na la yàlla defal loolu yombalal la ko ci barke Nabil Moustapha وبركة شيخنا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا